ci mbirum Sonko fii ñu tolloogu dafa war a bokk hmm. li tax may wax loolu moo ci yàlla dogal na ñaari yëngu-yëngu euh, maanaam yoon moo daanu ci ndoddam ba ñett bi njëkk mooy affaire u Adji bi ci des mooy affaire u Mame hmm. ak euh, li ñu ko tuumaal bu mujj maanaam appel à l'insurrection ak yu mel noonu léegi ci mbirum euh, maanaam Mame Mbaye Niang ndax moo mën naa ni moom lañ ñu àtte première instance àtte ko appel léegi cour suprême moo des pour wax luy xalaatam ci loolu loolu jeexagul ñu ngi déglu cour suprême bu dee affaire u Adji maanaam dañ ko tëj lu ñu wax contumace boo déggee contumace moo di ku ñu tuumaal mu def jéeya yi ñu jàpp ni moo gën a mag euh, tribunal bi ko war a àtte moom la ñuy wax chambre criminelle boo déggee contumace nag mooy dañ la bëgg a te yow teewuloo bu loolu amee tribunal bi sañ na jël dogal su jëlee dogal it sañ na la daan walla mu bàyyi la li tubaab bi wax acquitté su fekkee ne daan na la daan boobu du daan bu sax maanaam doon na daan boo xam ni day am diir boo xam ni fekk yegguñu ca daan bi saxul euh, maanaam li ñu wax contumace euh, fekk yeggoo ci li ñu wax délai de prescription de la peine maanaam daan biñ la daan fekk yegguñu ci àpp ba nga xam ni yoon nee na boo ko tëddul mënatoo ko tëdd loolu la ñuy wax daan bu sax fekk yegguñu fa kon maanaam daan bi mel na ni buñ ko tegee sa ndoot it mën nañ ci dellusi si loolu la ñuy wax contumace contumace it boo ko déggee mooy nañ koy àttee maanaam ay avocat du teew boolee git euh, maanaam du sañul def appel du ñu wax d'appel kon contumace bu amee dara rek ngay mën a def mooy li tubaab di wax purge de la contumace danaa ci dellu si léegi euh, dafa amit lu ñu wax état de contumace boo déggee état de contumace ñetti mbir lay tekki benn bi dañ la bëgg a àtte ñu ngi lay wër te gisuñu la bu loolu amee nit ki buñ ko àttee mu ngi ci li ñu wax état de contumace ñaareel bi euh, mu ngi lay atte waaye ci sa coobare bopp ñëwuloo wala boog daal euh, teewuloo tribunal loolu it mooy contumace état de contumace ñetteel bi moo di téye woon nañu la waaye rëcc nga kaso maanaam tegoon nañ la détention provisoire nga mujj rëcc yooyu ñett boo ci def état de contumace ngay ngay féete buñ la daanee feeg teguñ la loxo yaa ngi ci état de contumace loolu nag ci la waa nguur gi sukkandiku ca jamono bëgg ni maanaam dañuy dindi Ousmane Sonko mu bañ a doon li tubaab bi wax électeur maanaam mënatul woote waaye yàlla dogal na ci diggante bi Ousmane Sonko dañ ko jàpp te booy seet article code de procédure pénal yi muy article 307 ak 316 du code de procédure pénale nee nañu bu fekkee ne dañ la jàpp walla nga jébbal sa bopp yoon daan bañ la daanoon dañ koy neenal maanaam la condamnation elle est anéantie de plein droit dañ koy neenal ça nag dañ la war a àttewaat kon nag li aju lépp ci daan biñ la daanoon loolu day naax saay bu fekkoon ni nee nañu diw mii kat Sonko tuumaal nañ ko ci affaire aji Adji war na fay Adji Sarr nangam loolu ñu ko daanoon naax saay na bu fekkee ni nguur gi dafa bëggoon dindi qualité électeur am bañ ko jàppee loolu naax saay na léegi fii ñu toll bi nguur gi war a def mooy attewaat ko te attewaat boobu bu amee fii mu ne nag procédure normale lay doon maanaam bu fekkoon ne attewaat nañ ko ci mbirum uh, aji Sarr yàlla dogal ñu daan ko sañ na def appel bu fa jógee suñ ko daanee sañ na def li ñu wax pour pourvoi en cassation mm-hmm. mbirum Adji Sarr kon féeteegul boor bu dee li ñu ko jàpp ci mbirum appel à l'insurrection kooku ñu ngi ci euh, fi ñuy wax instruction instruction boo ko déggee maanaam dossier bi dañ koy dénk kilifa goo xam ni da koy saytu di ko segg bu jàppee ni Sonko war na dem tribunal layoo daf ko fay yóbbu def ordonnance de renvoi seet tribunal bi ko war àtte sul fekkee ni seet na ni liñ koy tuumaal maanaam amul dañu ko defal ordonnance de non kon loolu it ba tey sotteegul